zone bii di xayra si wàllu politique si benn bokk yaakaar yëngu na ndaw ya mënatuñ xajoo ak saxiñ Serigne Modou Mbacke Bara Dolly mu nekkoon seen jiit ci zone bi monsieur le maire Abdou Lahad Ka bi muy wax ne moom moo nekk ci suñu ginnaaw loolu bu ko waxee wax na lu amul ndax ñun suñu réunion ba ñu koy def maire yëgul tinul yàlla dogal na ni sax jour boobu fekku ko ci dëkk bi tey teguñu ko bët kon bu waxee loolu ne maire moo ñuy poussé pour ñu koy dal ci kawam maire amul googu jotam na bàyyi meer mi nga xamante ni moom lay këll këllee guddi ak bëccëg te man seetlu Modou Mbacke heure saa soo jógee di def attaque personnel dangay ngay xool génn kilifa rek nga dem attaqué ko te Abdou Lahad Ka mi ngay attaqué yàlla dogal na ni moom dallu Abdou Lahad Ka wu mu summi ba ñu koy sànni ca poubelle ba moo la ëpp njariñ ci dëkk bi kon kooku du sa nawle nit booy wër da ngay wër ki nga xamante ni kooku moom mooy sa nawle beneen bi ci topp bu fekkee da am ñooy xiixaan dangay dem ba ndakaaru ca ña gëm xiixaan muy directeur yeeg ministre yi fa teg nga xamante ni heure boo leen xiixaan yi yëkkati xaalis jox ko mii fii santas jeex na fi fii du ñu nangu kenn koo xamante ni da nga da nga fii santas zone bi ñu nekk waxantuma la ak di santas kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir zone bi am koo xamee ne dafa jiite woon zone bi di wuyoo si turu Modou Mbacke Baara Doli nag dégg nañ ko mu def benn sortie bu bu mag wax ne fii ci xayra kenn ku dul moom mënu koo jiite koy xamal ne ko nag xayra gii li mu fi desee muy ab ëmbam mën na koo takk yóbbaale ko dëkk ba mu jëm muy njumaan. du Mbacke dégage bañu Soxna Njóoba nag ak laat ka mi ngay xeex na ñoom ñoo Soxna Njóoba dafa nekk patrisu ñun patrisu bu bu nekkee patrisu bu ñu geesoo moom la ñu gis yow mosoo ñoo demal ngénte mosoo ñoo demal dëj. Basiru ñoom nekkat nag trop c'est trop. il faut que sëriñ bi arrêté may leen seen afiya ñu mën a wéyal seen activité ñu ko bëggee. te nag loo taxaw ci pour ne da ngay jiite soon bi teg nañ ci suñu bakkan taxaw ne dootoo ko jiite kaay kaay jiite ñu nag dafa gën a yomb tey man maa leen di jiite aka neexoon ñu ne la Moodu kaay jiite ñu waaye heureusement doyatoo ñu mënatoo ñoo jiite sagale woon nañ la ko sag boobu noonu amatuñ luñ ciy seet dindi nañu ko. démb nag dégg naa ci sa biir point de presse nga ne tey su ma delluwaatoon njëgéej am na gone yoo xamante ni ñoom ñoo may feesal ay ay ay ay nage ki bëy <laughs> Modou da ngaa da wax lu la neex rek gone yii fi nekk nii te dëkk njëgéej tey boo leen fekkaatoon njëgéej yow yaay sàmm seen i nag doon seen surga nekk ci seen i tool doon suñu jàmm. mu jël électoralam dem saa si ji ko yóbbu ko njomaan na toog foofu continué la mi def mais nag li ma ko waxoon mooy wenn taat mënta war ñaari mbaam fii ci xayra dañ lay wax ne yow Modou Mbacke Baara Dolly pare nga fi ndax boo xoolee 2019 ñi la àndaloon ñëpp muy ñi nga woon ne sa ay nit la amul kenn ku ci gis muy ànd ak yow kon war nga xoolaat sa taxawaay. ñoom nag bëgg nañu kat bu ñu jógee si lii gën a organiser wu ngir waajal élection locale yi bu ñu sukkandikoo seen i